aja jërë ngeen jëf mbokk yi suivre biir arène tv ak la lion des lions borom petit corps ragalu loolu tey nag ñu jayi jayi fañax fañax yi doxantu ba fi nga xam ne mooy Vélingara fekk fi ki nga xam ni ndaanaan la Euh, nee naa la tubaar fa kàlla macha allah ñu fekk ko tamit ak ay champion am du ñu waxagum si moom en attendant ndax toog nañoo benn champion dinañ ko laaj tey si ki nga xam ni moom lañ fekk si laaj ko tamit si moom tamit mi saison bi euh, li nga xam ne moom la ci jot liggéey euh, ñu waxtaanee tamit li nga xam ne moo ñu fi dajale tey waaye tamit du ñu guddal dañuy bàyyi champion bi rek ndaanaan bi kenn dootu ko naatable si li nga xam ne mooy lutte simple ku nekk xàmmee na kanamam xam na ko li ma koy woowee chaque jour bukki bi ci biir bukki yi laa tooga dama koy bàyyi mu nuyoo ak askan bi doomu fi mu laa maa ngi lay ziar naa la bu baax di bëgg gaa yi toog nii yëpp waaw di jox ku ne sa wàccuwaay quoi di ziar suñ grand cote suñ lépp quoi parce que boo gisee lii tamit dafa rafet quoi di leen di jégalu rek si déplacement bi ak koor gi ñu nekk parce que dara neexul amaana bu doonoon keneen mun naa ñàkk a demee nii quoi waaw di rafetlu seen toxin bu baax a baax. ci weeru koor lañ nekk moom lu muy nuyoo gars yi leen ak ak tamit ba xam mu ngi ci koor gi wala mu ngi bàyyi faalu mu ngi joxe day joxe ndogu. <laughs> non damay bàyyi faalu waaye damay joxe ndogu tamit waaw di profité waalu rek di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak waaw. si koor gi ñu nekk quoi. loolu am na solo moo ñu jugee si nga xam ne mooy mi saison mu nekk saison boo xam ne tubaar fa kaala macha allah gis nañ moo def na si ren performance daaw am na nu demee woon si côté ren génn na mu am yoo xam ne ni tey jii ak ñàkk demi-finale yi tamit demi-finale yi ren demi-finale booy xool xam na li ko gàllankoor tamit si làmbam lan moo nekk problème. no laal yoon lamb moom mooy loolu ko quoi parce que comme ni nga ko waxee rek daaw man dama bëre daawat jéeg sama saison neex trop daaw ma ñëw saison daaw bi bëre besoon mënumaa finaalu dégg si nag muñ si lu waaw di ñaaxaat gars yi rek ne leen lamb moom dañ koy comprendre quoi sa saison bu jotee da ngay def dara waaye saison bu dul sa saison moom doo def dara waaw saison bi passé moom alhamdulilah sant nañ bu baax a baax quoi waaw parce que nu mu tuuti tuuti bëri nañu te am nañ sept final quoi waaw defaguñ dara nag waaye final nañ sept fois quoi. si biir sept final yi moo lépp la jël wala daa am lu mu ñàkk. non non biir sept final yi kaati laa jël benn bi ñu dem man ak Saalum cuun final Diouroup après lamb bi am problème. gars yi maire maire dëkk bi dugg si biir dëkk bi quoi ne ma bul bëreet moom comme que si biir dëkk bi la dëkk man leen garaawul yeneen ñaari des moom dama koo ñàkk waaw. am na solo mais tey jii moon ñu gis euh, ren tamit buñ ne am na sept final mais lim ñàkk si ay demi final ay quart de final surtout ma Dakar. waaw noonu laal yoon man moom lambu Dakar dafa ma xaw a jaaxal quoi parce que début première fois mooy soog a dugg Dakar final naa ko final waat ko finaal waat ko man lambu Dakar a feebar parce que sama yaram day tàng jër te nu mu ba demi final ñàkk mënu ma comprendre lan la nag billaay wallaay. comprendre lan la barke ma laa. sarax yee manqué wala lan moo manqué wala am lu si xew dañ koy la si sentir wala lan day doon. non moom des fois moom man moom damay sentir dañ may téye quoi parce que da ngay xool suñu zone ba suñu tànk moo gën a métti tànk Dakar tànk Dakar par la benn catégorie gi la te fee da ngay gis poids légers yoo xamante ne dañuy dem ba 94 kilos 95 kilos te Dakar moom 86 bi la ñu maintenir moo tax daal man lambu Dakar dama xaw a joomal des <laughs> mais bukki bi damay yaakaar ni moom dañuy xool gars yi dañuy wax de du samay wax nag gars yi ne nañ chaque jour suy daanu moom mooy daaneel boppam ndax si biir bëre bi du taxaw day dem rek moom li muy gis moom bu arbitre sifflé mooy mu jàpp la taxañ la tegee la fi. non laal yoon loolu loolu ngëm-ngëm la rek te koo dese comprendre man dama gëm ne tey at bu moom jël li may am waaw man noonu lay bëre depuis ma débuté ba tey ñi ma xam ñëpp noonu lay bëree quoi parce que man bu ma taxawee des fois damay ñàkk moo tax damay ñëw appliquer li ma am bu ma waree ma am bu ma a ñàkk damay jàpp dama war a ñàkk rek waaw. bilaay lamb bi nga xam ne mujjee nañ koo gis moon ñu bokk moom géew mooy Fadial bokk na li ñu marqué moon ñëw poids lourd ñu tegoon poids lourd su ma juumul 700000. waaw Euh, euh, moon ñëw tey boo xoolee favori yi xaaj bi yëpp moo leen waddal mu ñëw ba demi final benn naataangoom boo xam ne nii ndaanaan la tamit ñu ngi koy ziar moom Rimka borom Zawal ndax dama koy wax moom tamit dama koy wax mu ñëw ndax dafa bokk ci làmb moom tamit raar bi du baax ci moom siika mbay yi ànd ak mbëri tamit ñuy dal di ànd ak teey xam nga ak xam ne rek bu gars yi buñ téyee sa licence yow yaa ciy am gàllankoor mbër bi mais ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom tamit ànd ak dal ngeen bëri mu daan la te keroog daa mel ni waa Joal nga tegale tegale tegale boo xam ngeen bëri bëri bu métti waaw gis nga nugoy lamb boobu nag dafa doon lamb boo xamante ne man métti na ma benn instant quoi parce que mosuma préparé lamb noonu dama jóge Dakar contact uma defuma dara une semaine laa def saal laa doon dugg bi ma ñëwee fii laa ñëw fanaan fi ba boor set ma ne Ngor dinaa dem bu Fadial waaye poids laa fay dem mu ne ma bu ragal loolu yaa ngi léegi ma demee tase Mbine Ndiol premier tour daan ko daan Mbine Karim sama papa ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay. ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay. Babacar loo waxoon sama mbaaje nuyu na la yàqee njop te man lu ma gën a metti si affaire bi man ak Lamine TV ak Karim ñu na taxaw benn place Karim nee na garaawul man maa fi naa lu mar sama booy nga dama lay bàyyi. léegi ma génnee ko benn yoon par attaque ma ko takkeek naax noonu foog ne day bàyyandiku si la ma xaar daan ma daw quoi waaw. Ah, kon da laa wax ne da may ba pare nax la daan la. ma nax daan ma. si kanamu Lamine TV man li ma wax ni Lamine TV fekkee na ko man ak moom ak Lamine TV ñu na toogoon mhm. waaw. mais Babacar dafa wax ni lan. Fapal teewoo Simnaam yàqee Njom est-ce que jarutu tamit loolu na bu jaru ngeen di bëre boo leen bëree ba pare kenn ku nekk boo yëkkatee dara nga jox sa yaay ak papaam ñoo bokk la. ndey ak baay sama doomu bàjjen direct la. sa doomu bàjjen la. waaw waaye yow yaay doomu ndijaay. waaw yow yaa ko war di jox. <laughs> non moom moom moom daa yàq moom daa yàq. mu dama lay may. non man laal leen man may nit koo xamante ne gis nga man bu ma la naree may dama lay naan dama lay may bu ma la narta may dama lay naan mayu ma la parce que man dem naa fi laan dal si benn kër. di bore di bore ba tas benn booy booy di reyante ba final benn nag barke Serigne Touba ma may ko final bu ma neexoon du ma ko may. booy bi ki nga daloon lu dëkk wala kër gi ma daloon la def da doon xëy ñëw foofu ñuy togg ataaya mu doon Baye Fall moom tamit dañu final lu ma may ko te man moom xaw ma affaire wóor yooyu quoi ma la ne dama lay may rek dama lay may barke waaw. loolu am na solo euh, euh, euh, macha allah sa début saison bi nii mi saison bi nga xam ne loolu moo jot a jàll saison bi donte saison bi tëjagul lan moo la si gën a marqué. non mi saison bi moom li ma ci gën a marqué bëri na quoi xanaa ma téye quelque rek lim ko jàll. waaw comme suñu zone ba. waaw man dama fa doon bëri tout le temps. waaye boo xoolee man yow mii sax war nga ko suivre. dama fay xaw a raar. lu waral loolu tamit foofu noonu. voilà xam nga lu waral loolu. sama mère moo may tere bëri côté boobu noonu des fois. parce que daaw dama ci amoon gàllankoor bu métti. bu méttee métti sa laal yoon. parce que Serigne Bamba bu métti mosuma woon a foog ne dina deñ mu doon nelaw ba dóor sama baaraam si miir mu toj quoi fajar fekk nelaw naa wala nelaw ma dama doon xool sax comme zaal jànneer la ma def ma dóor sama loxo si biir sama baaraam bi toj. billaay walaay mu doon li ma pénaliser si la sama ne ma fii boore da koy wàññi parce que da nga am gàllankoor parce que da nga bokk si favori fii nii loolu moo tax sax ma fay raar des fois billaay waaw. loolu daal bokk a li la marqué si saison bi. ma. daa mel ni ñëw nga fa benn yoon. ñëw benn yoon. mais damay ñëw foofu taxaw foofu noonu danga nga faa ñëw ubbite saison nga ñëw fa nga bëri des si drapeau bi ñu continuer dem fi nga xam ne mooy yaayam. nga bëri fa ba final. nga bëri fa ak Doudou Sané Boyar bëri bu métti combat bu métti. ñu fanaana làmb ji dem ngeen xëy. bëri dañ leen a tirage pile. nga gañe ko par pile bii mu génne la par point ndax foofu arbitre normal nekkul woon ci mbapat ba. ndax booy boobu noonu na kontaanee si photo bi ma ko photo nag si final bi nag ndeysaan ak cee bëgg. non <laughs> laa moom arbitre normal nekkul si yoon waaye da di xamante ne comme lu di wax rek lii sa liggéey moom doo ci tayal waaw man dama bëre fi mu la ñu des fa huit personnes xam seize personnes après ma dégg mba patu nag yaayam sama benn xarit sax. moom moom ma woo ma kaay si mbapat ma ko mënumaa ñëw si mbapat parce que dama des mu ne dëmb gënt naa nga bëre fi finaalu fi nag noonu laa mujee dem finaalu boros mujjee maa daan quoi bilaay mais tey jii boo loolu bi ngeen dajee fee ñu pile leen ngeen xëy ngeen dajawaat bi ngeen dajawaatee yàgg Doudou Sané Boy man moom champion la man ngi koy nuyu au passage la bu ñu tasawaatee jour boobu noonu laa yoon ku seetaan lamb ji xam ne at teg ko si code barke Serigne Bamba parce que premier round bëre nañu ma am avertissement mu am avertissement bëriwul man maa ko teg ay ñaari naa daw moom ba ñu jóge saako yi mu tourné génn ma génne saako ñu jox ma avertissement te moom si biir boore bi sax dafa def 4 appuis def na 4 appuis après 4 appuis bu mu amee dem nañ table ba pour def recours arbitre yi bañ barke alxuraan boobu xanaa da ngaa xool vidéo ba pare moo bi na ma boo demee bay bind recours a am recours dawal jël vidéo bi dem jël vidéo bi kon di moins dawal dem table technique. boo demee table technique réclameel boo réclamé ñoom dinañ la demander ni la da ngay bind recours nga ni leen waaw yow bu boobaa ñoom dañ naan la demal indi vidéo wala ñu ni la kan nga xalaat ni moo ko am wala dara boobaa yow nee leen dem leen jël vidéo bi joxeel sa xaalis dem toog di leen xaar mais léeg mbër day daan wala action am recours am mu dem di xooli vidéo ba boo xasee ba xool vidéo ba perte nga te bu ëppee cinq minutes tamit mënatoo def recours mbër yi dee leen bàyyi xel si loolu ngeen di a xam seen droit léeg nga daw ñëw si am laal yoon fekk mu ngi concentré si benn combat moon mu jànni la ni la joxuma la vidéo bi nga ni damaa bañ wala damaa amee rek booy bind recours rek dawal table technique bul daw si TV TV bul daw si yéen dawal table technique ku xalaat rek action am na la na dem table technique ni day dem demande nga xam mooy recours bu ko defee sa recours dina mën a jaar yoon mais boo njëkkee si TV TV di fa am ga dinañ la jànni ni la joxuma la bu dee TV TV boo xam liggéeyam la bu xamul liggéeyam la mën na la woon bu ko defee yéen ñaar ñëpp ngeen am toor ndax mën naa mooy loolu mais tey jii jour boobu tamit nga génn foofu noonu daa mel ba fa nga si nga jaare tamit bëri waatoo arrondissement ba noonu waaw gis nga de noonu la demee de waaye après Korité bi moom maa ngi koy programme bu baax a baax mm. waaw maa ngi koy programme bu baax a naa faa ñëw parce que man fa laa xaw ma feneen fa laa juddoo fa te boo xoolee tey man sama bëre sama début fa laa ko defee pour ma génn sa poro ci problème la man côté boobu rek laa doon boo fi mu laa joof yor dugg si ndox bi mm. musuma faa génn bilaay walaay fekk naa la mbasi sengoon ren foofu tamit arbitrage ba ñu bëree combat ay 100 minutes yooyu noonu. ah, ah Nogoy comme ni nga ko waxee léegi rek arbitre yi moom suñuy nijaay lañ suñuy papa lañ suñuy lépp lañu waaye des fois rek waaw te boo xoolee laamal a tase woon. waaw moom tamit sama gaañ la. sama lépp la dañuy contact des fois sax jour bu première mi-temps def ma ne kaay ma may mhm. léegi si la ma xattar bi bugg maa daan affaire yi mhm. mun na ma génnee ma par point ma génnee ko par point mhm. waaw te man boobu mu setee jël naa sama téléphone woo ko ne ko saa ni nga def démb du yoon boo may may may ma rek moo gën nga ma bëggoon profité bugg maa daan barke Serigne Bamba. a waaw dafa dem ba si biir man laa yoon nante laa xam naa mbër yi bu baax a baax xam naa leen bu baax. mbër nandite. <laughs> moytul ma ko <laughs> waaw moytul ma ko de ku mel ni capitaine bu fiisel <laughs> waaw nante la si mbor yi eh. waaw. dégg loolu am na bilaay hmm. tey ji lan moom nga loo xam ne moom ngay naqarlu tamit sa mi saison nee nga woon li la marqué dafa bari par yàlla ñu xuus si yeneen ak yeneen ak yeneen li la marqué boo ko doon résumé boole ko ak li nga xam ne tamit naqar na la si sa mi saison bi wala. non gis nga rek laa yoon aar bi moom boo si nekkee moom lépp lu la métti du da nga koy wax quoi hmm. waaye lu la métti fii nga koy dugal te lu ko mun a fay mooy liggéey. waaw mais tamit léeg-léeg nga jël xam ne la métti def ko sa biir xol bi mu def la góomu xol loolu baaxul léeg-léeg am na yoo xam ne dem gars yi xam ah waaw kon mu dañaako moom lenn rek moo ñu métti moom waaw lenn lañ bëgg di talal gars yëpp ñaan waaw ku ne noo ci mun a jàpp ba gars yi doon champion du ma wax sama bopp sax mbër yëpp laa mun a waaw ñu jàppale mbër yi quoi waaw ak gars yi nga xam ne dañ naan maa ngi jàppale diw te jàppale wu ma leen ah loolu moom dëgg la de man moom dëgg dëgg fa la côté boobu moom waaw dañ ci ñëw wax si pour ñëpp xam ko waaw parce que keroog dama dem boo mari bu ma fa demee ma taw foofu noonu am benn grand bu ma gis li may tegal ne dama am jàppale dakaar gaa yi ma yor mooy loolu te dakaar man laa leen saa yi ma fay dugg dama yóbbu sama xaalis muy nawet muy noor saa yu demee ba de 5000 ma paas ñibbi si noonu lay jóobee quoi waaye sama lekk man maa ko yor sama naan maa ko yor waaw am naa daal ñetti policiers yoo xam ne ñu ngi foofu noonu ñoom moom ñuy jàpp a baax xoolee reporter Lamine TV da ngay dégg muy naan Moda Diouf Moda Diouf chaque jour waaw moom la maa di nuyu Assane policier di nuyu Bayla quoi waaw. ñooñu daal ñoom ñetti ñooñu ñu ngi ciy jàpp. waaw ñetti yooyu moom ñu ngi jàpp si combat bu baax a baax quoi. yaa sa nga mel ni a ah, la demee de policier yi moom dañoo baax quoi barke Serigne Bamba ñoom amaana sax yàlla bu leen may lu bëri lu leen may dañ ciy bokk quoi waaw ñoom ay Baye Fall lañu bilaay. loolu tey bu ñëwee ñu jugee si mi saison bi ñëw ci li ñu fi dajale tey ki nga xam ne tey daa am benn ñaan gu muy def muy ngóor nekk seen lépp ngay jógee fépp di ko ñibbisil toog nekk ak moom xam nga Babacar enregistré ma xool fekk la fi nga xam mooy Vélingara tey nga xam ni sa lépp mel nañ ni fii la boo bëree jiwul fii ngay toog moom ngay nekkal boo ñu doon wax kan mooy ngóor loo ñuy wax si moom ak li leen fi dajale tey ah laal yoon ngóor moom ngóor ñëpp la quoi man moom boo xoolee daaw la ñu xamante fin saison bi bu affaire yi taree dëgg-dëgg si man si la ñu xamante parce que benn bu ñu naan duut seen mooy grand may àndal si lambuy moto maa ngi koy nuyu au kooku moo tax ma xam ngóor waaye ngóor moo ko xamee ba tey moom dëgg-dëgg fa la ñett yi xam na xamal naa ko jub baax am ngor waaw borom baax dëgg-dëgg la parce que da xool man suñ dëkk soriw fi quoi soriw fi te ñëw jóge naa dakaar ñëw fi te du ma yegg suñ dëkk damay delluwaat Dakar barke Serigne Bamba di koy nuyu rek di ko ñaanal lépp lu mu dugg yàlla na sotteeg jàmm quoi borom baax la yéeg na nit te man moom aw benn problème côté barke Serigne Ba li ma bëgg suba ba ngoon mu ngi si bañ na ko ba ku ma ko booleel sax da lay liggéeyal da ngay dem du la naan jox ma lii barke Seydina Mohamed waaw te man moom jàppatuma ko comme Serigne sax dama ko jàpp comme mag bu ma bokk ak ndey ak baay billaay wallaay li ma sañ moom kese laa ko sañ toll si àll bi des fois càng paas na ko yónnee ma paas mu yónnee ma paas moom kese laa koy def si Serigne billaay waaw. tey jii nga gis daaw saison bi naqari sa côté fin saison bi mu jàppale la nga am si lan ñetti nag. waaw tey jii ngeen ñëw saison bi ngeen di doxal mi saison gum mu xaw a tane sant yàlla ñu ñu war a waajal li nga xam ni mooy li li def si saison bi bu buñ ko ritee ba pare est-ce que yaa ngi suur gars yi da ngay dégg léeg-léeg ñun la làmb boo defee début saison bu baax digg ba du baax wala fin bi du baax mais ak ngoor tout est possible laa ah, mel non làmb moom mooy loolu rek boo nekkee ci li nga nekk moom waaw lu yàlla def rek nga xam ne noonu la quoi ngóor moom man moom côté boobu moom dëgg-dëgg war a ragalu ma ko waaw bu dee préparation la moom li war ci ñun moom da koy def si ñun man ma naa ko bu baax a baax a baax laal yoon fii Sénégal la gis nga nit ku ñuul fu muy ñëw gisu fa résultat du demee du ñëwaat ak ku te doon nag tey mi yow mii tey bu ma la boole nag ngóor mu defal la dara nga dem gisoo sa bopp nga ñëwaat gisoo sa bopp suba doo ñëw même mënu ma laa forcer doo ñëw te nit ki moom fépp fooy dem di fa gis différence di fa gis sa teraanga moom gën koo jàpp ko waaw. kon looy ñaax yeneen mbëri yi dañuy war sëriñ yi war wala mbëri yi war. moom mooy loolu moom mbor moom ñu si sérieux moom bëriwuñu laal yoon waaw man moom loolu dama koy wax te bépp mbor buy wor sëriñ moom xamal na sa carrière mun naa ñàkk a gudd waaw mun naa ñàkk a gudd parce que lamb boo si génnee mystique te des fois zéro mooy des waaw. lamb boo si génnee lamb boo si génnee mystique des fois zéro mooy des da ngay gis des fois mbor yu bëri doole te duñ daan nit loolu day am lamb il foog nga compléter il faut nga am entraînement mystique bi baax nga am ginnaaw tamit waaw. voilà looy tàggatoo looy wax looy wax gars yi nii loolu ne dikk ndéwénal gi ndax korite gi lamb yi bari nañ lool lool lool lool lool lool ku ci liggéeyul woon si biir koor gi bu yow nga xam ne perte ah waaw comme ni nga ko waxee noonu moom wax dëgg dëgg fa la après korite bi moom saison bi daa gudd boo xoolee saison bi passé bii ñëw nii moom moo ko ëpp waaw di ñaax sama mbokku mboor yi ñëpp waaw yàlla ñu yàlla may jàmm ñun ñëpp ñëpp ku ne yaa xam li nga bëgg yàlla nañ ko am di kontaan si yéen bu baax a baax nag di bëggee sama grand bi bu baax a baax kii moom doonatul sama dara sama sama sama sama euh, entraîneur de sama lépp la waaw parce que damay dem ba gàllem ñu toog di waxtaan waaw appareil ko yow tamit yow moom man fu ma toog dama lay bëgg barke Serigne baax non déedéet laaj yoon xam nga man lan moo ma neex si yow da nga di jigéen nangoo daan doole bu la neexoon nga def si yenn nen yenn man dama lay gis yenn heure yi gëm sa bopp moo lay may loolu waaw di kontaan si yow bu baax a baax a baax a baax man moom aw ma sa fay waaw. wax sa mbaaxuwaay du wàññi sa mbaax dara day wax sama mbaax mais moom a gën a baax bokk na si mbër yi nga xam ne boo donte dafa daan woon final Babacar bu dee ñetti dërëm la du dem ba ni ma mu la mun a ma Sika ba daw naa xaalis baak wala dem na soto wala ma wéef la musuma wax ne kaay ma wéef la moom mooy daagul boppam ba si samay tànk yëkkati xaalis bi lu mu moo xam 2000 la moo xam 5000 la mu jox ma ko Dakar léeg-léeg ñu jugee Dakar xam nga Dakar ak ni ñu waaxoo adressé nga wala gaal gi ba ba ba fi nga xam mooy paduwaa ñu dugg oto mu yëkkati xaalisam paas donte du ma ko xàmmee sax moom mooy damay jékki-jékki nar a paas chauffeur na la ma def nii xool jàlla bi nekk moom kon tey jii nii dañuy wax rek ñun ñoo bokk milieu bi ñu bokk loo xam ne mënuñu koo séddoo ñuy jàppalante kenn amul dara li am solo mooy ba am solo mooy nit ki yëg ko safoo ko faale ko jàppante te yàlla rek tax ngay defal nit tamit te yàlla rek tax ndax tey jii eh, àdduna amul solo te lépp day jeex te benn temps bu ndaw la kon nañuy refatal bokk ndey bokk baay di baalonte ax moon fi mu laa la woon si biir arène tv comme d'habitude rang muy abonné ku ci topp